daarul birr wal irshad ak daarul birr tv ñoom ñooy delsiwaat di ñëw ak yéen ci conseiller à la jeunesse li sabab bind bi tey dafa am benn ndaw lu ñëw seet si ma tey bi ma ko recevoir ñu waxtaan mu doon ma gaaral ay jafe-jafam bokk na ci lam ma gaaral mooy dafa jaaxle dafa tiit ci wàllu diineem ndax gis na ni dafa am lu yàq dundam yàq diineem sonal ko lool li muy wax ak man yépp mi ngi jooy loolu mooy idmaanu nazar ila al ibahiya wala mushahadatul ibahiya di xool ay cassette pornographie wala ci téléphone loolu nag bi ma ko doon conseillé waxtaan ak moom ba pare ma gis ni war naa koo yëkkati <clears throat> ngir mu jëriñaat bépp jeune bu ñuy déglu ndax mbokk yi xam ngeen ni pornographie seetaan ko mën nga ni musiba bu mag la te danger la ci dund bépp ndaw ndax li koy wommat mooy bànneexu bakkan nit ki su demee ba lu bakkanam bëgg mu def ko mooy yéene na yëg ni àddina mi ngi jëm ci yàqu xam ngeen ni seetaan li ñuy woowe pornographie yéen jeunesse bi yéen ndaw ñi yéen yéenay yaakaaru ëllëg waaye yéen yéenay dëgër laayu askan wi kon maa ngi dénk sama bopp di leen dénk lii ku mu nekkoon ci yow gaawal nga tuub te nga bàyyi ko ndax yëfi bakkan la yëfi bakkan nag xeex rekk moo koy dindi ak góor góorgóorlu seetaan porno fitna la ci dund bépp ndaw ndax dafay yàq sa personnalité waaye dafay yàq sa avenir xanaa xamoo ni seetaan loolu nga xamante ni mooy jëf ju ñaaw dana dem ba day yàq sa jëmm yow ndaw li ndax sa bët li muy seetaan lu xaram la sa xol li muy jàpp lu xaram la sa nopp li muy déglu lu xaram la xoola rek bi nga koy def fu mu la fekk ak loo def ndax bi nga koy def bëgg nga nit ñi seetaan ko ndax bëgg nga nit ñi fekke ko tontu bi moom mooy déedéet borom bi ne inna samaa wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu masuula borom bi nee na xam leen ni seen nopp yi lépp lu muy déglu danañ laaj nopp yi yowmal qiyaam te nopp yi ñooy tontu seeni bët lépp lu mu doon xool danañ ko ko laaj yowmal qiyaam te bët yi tontu waaye seeni xol lu mu jàppoon seetaan porno góor ak jigéen war ngeen a am kersa rusu yàlla ndax kat innahu kaana fahisha wa saa jëf ju ñaaw la yoon bu bon la mooy di seetaan loolu nga xam ni jëf ju bon la te mooy pornographie seetaan ñaar ñoo xam ni mën nga ni xaj moo leen tane walla mbaam ndax ñoom ay tubaab lañu amuñu diine amuñu kersa amuñu lu ñuy rus yow ndaw li am diine bëgg yàlla bëgg yonent war ngaa góorlu moytu jëf ju ñaaw ji ndax borom bi nee na yonent bi qul innama xarama rabbi alfawahisha ma dahara minha wa ma batan nee na borom bi taala wa tabaarak araamal na bépp ñaawteef moo xam bu feeñ walla bu nëbbu yow ndaw li ne la biir ni seetaan pornographie day yàq imaanu billah day yàq sa ngëm day yàq sa pas-pas day yàq sa diine te day dindi kersa képp ku koy seetaan dootoo am kersa dootoo nekk ku ragal yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne inna mimma adraka annaasa min kalaami nubuwati al ula lam taftahi fasnax bi ma chita nee na yonent ya jiitu woon démb dañu daan wax ak nit ña naan leen ku amul kersa daal mën naa def lu ko neex yow mi seetaan pornographie xanaa xamoo ni am na ay dange yu muy indi ci sa wàllu wér-gi-yaram ndax daf lay def nga nekk ku faible ci sa wàllu kàttanu sëy moo tax xale yu góor yu bari danga leen di gis léegi dañuy am problème faiblesse sexuelle dañuy mujj di mottalikoo di naan ay comprimé wala di naan ay fortifion wala di naan lu leen taxa dëgër mbokk yow ndaw li est-ce que xam nga ni seetaan pornographie day sabab li ñuy woowee suraatul qazf mooy éjaculation précoce wala prématurée saa boo ko tàmmee seetaan léegi fa mu lay yóbbu mooy sa siddit day oyof ba léegi mbilim lacc boo jàkkaarloog jigéen wala sa soxna rekk nga daal di sottiku yàlla ci yàlla musal kon ndaw day sàjj xefam day moytu bàkkaar pornographie xamal ni fiir la goo xam ni iblis moom lay fiire ndaw ñu bari su leen bëggee tee bëgg a dox seen digganteeg ngëm yàlla bëgg a dox seen digganteeg seen islaam foofu la leen di dugal foofu la leen di téye ñu jël seen portable yi di seetaan loo xam ni lu xaraam la di ca amee bànneex di ca jële lu leen di bégloo fekk loolu mi ngi leen di suul te yëguñu ko kon nañu moytu xale yu góor xale yu jigéen moytu leen moo tax borom bi taala wa wax ni yonent bi waxal jullit ñu góor ñi qul lil muminin yaxuddu min absaarihim wa yaxfadu furujahum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi ne ko waxal jullit ñi ñu sàjj seeni xef bu ñu sàjjee seeni xef loolu mën na leen a dimbale ñu mën a sàmm seeni pay bokk na ci danger yi seetaan film pornographie di indi mooy day tax ay seytaane mën laa dugg saa boo koy seetaan ni sa xol di féexee sa xel di kontaan noonu la yaram bi ubbeekoo su ko defee iblis yabal njabootam ñu ñëw dugg la dugg sa yaram ànd ak yow loolu moom mooy tax saa boo toogee benn diire bi rek mu dellusiwaat ci yow kon loolu da koy bàyyi xel bu baax yow ndaw li li la mën a dimbale nag mooy li borom bi wax wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an il hawa fa inna al jannata hiya al mawa alquran ne képp koo xamante ni ragal na darajay boroomam ak dayoom na yëg ni àjjana moom mooy këram ndax ki ragal dayoy boroomam ki ragal kàttanu boroomam te xam ni bis dina ñëw borom bi laaj ko kooku day na yëg ni dana téye bakkanam ba mu moytu bépp ñaawteef kon ndaw ñi maa ngi leen di woo ci yàlla di leen fàttali jikko ju rafet di leen fàttali ne seen avenir seen loxo la nekk bu leen ko fooyee góorgóorlu leen te moytu lépp lu ñaaw yàlla subhanahu wa taala daf ñoo wax ni nañu moytu mel ni baahima yi jullit nag bu sàgganee ba lu ko neex def dootul tane baahima ma sax moom moo koy tane waliyaadu billah <coughs> kon loolu ma dénk ndaw ñi di ko dénk sa bopp di ko dénk ñépp yow jigéen jàppal ni foone sa borom mi ngi lay xool yow góor jàppal ni foo sa borom mi ngi lay xool bis bu sa xel demee ci portable bi nga bëgg a bëgg seetaan ay site pornographie xalaatal sa borom xalaatal sa borom salafu saalih dañ doon wax ni képp ku nar a def bàkkaar na nga xalaat borom bi la tiim borom boobu la tiim ni mu lay xoolee war ngaa rusa jëf lu xaraam ci wetam kon maa ngi leen koy dénk te ngeen góorgóorlu xam ni baaxul ci seen avenir baaxul ci seen wér-gi-yaram baaxul ci seen jëmm baaxul ci seen aada baaxul ci seen cosaan baaxul ci seen diine yàlla yàlla defal ñu jàmm defal leen ko salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.